doore suñu wax ci feddali ay nuyoo ak suñuy ziyaara ak suñu taalibe ak suñu doomoo ne ci suñu kilifa bu baax gii muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général kullu murid waaye xalif général kull kuy jullit. ne di la dellu di bu baax a baax Mbacke. ne ci tuuru sa turandoo. xaritam. muy monsieur président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ne bi muy ñëw ba bi muy gaare fii. ne moom la doon waxtaanal ci téléphone bi. ne donte bi mu jógee ci yow ak léegi ñaari fan la. waaye insiste na bu baax a baax. ni ko. ne mu jottali laab nuyoom bu baax ma ak mbégteem. ci niñ ko dalalee fii ba ci dem. niñ ko fi terale niñ ko fi yaatale. waaye ni ñu dalalee xelam yi. mais di jàllale suñu ziar ci turu gouvernement bi yëpp nag. mais naam li mu àndal ci ay ministre lu mat juróom la. waaye dañoo représenté mboolem gouvernement bi nga xam ni moom mi moo ko jiite. mais suñu teewaay fii nag. man nañoo wax ni ci qualité yu bare bare bari. waaye dafay feddali. waaye solo si nga xam ni. lii ñuy célébrer tey. am na ko ci ñun. ndax euh, màggal bi. def nañu ñetti conseil des ministres yoo xam ñetti conseil yoo xam ni. ne président daf ko tudd tuddaat ko. daal di joxe ay ndigal. ci bépp ministre boo xam ni. war na ci am cër.

def na weer wala lu ko ëpp tuuti waaye visite privée la woon bi ak doom bi moo ñëw ziar si tey ñëw nemmeeku si ñëw sàkku si ñaan waaye ñëw duy ci ay conseil ne tey nag ñu ñëw fi ci gi nga xam ne yàlla suñu borom jox nañu ko muy premier ministre bu Sénégal mais loolu bu ñu ko waxee nag li ñuy njëkk a def mooy sant yàlla bu baax ndax nëgë ni si daaw màggal gi ñoo ko seetaan ci télé tëdd ci lalu hôpital mais loolu la ñu amoon ci màggal gi daaw waaye amoon ci lu ëpp solo loolu yëpp. mooy ci jamono jii daaw la ñoom ministre Aïda Mbodj ak Habib Sy ñëw fii ziar si la Mbacke bi ñu fi jógee sëriñ bi yónni leen jox leen benn booy tàndarma ni leen dem leen seetal ma sama doom sama taalibe ni ko ñaan naa ko digal naa ko mu jël ci tàndarma ji te dakkal grève de la faim bi mu def mi ngi woon tombe jamono ji ñu toll daal ndax gën saa gudd ñeent wala juróomi fan moo tax bu gëmoon màggal bi daaw kon loolu di lu rëy rëy lool ci ñun luñ dul mës fàtte ndax jamono ju ne ak li mu méngool ak li mu tollool da ngay a xool càmbar taxawaayu kenn ku ci nekk ci nit ndax foofu mu tëddoon ne xalaatoon na ni ñëpp fàttali nañ ko ndekete mbàkke suñu kilifa gu baax gii toogul benn fan toogul benn guddi ne te xelam ci suñu jëmm yi mu def ci li nga def ci li nga war a def lépp nag ci zahir ak ci baatin lu ci nit ñi xam ak luñ ci xamul luñ ci yëg ak luñ ci yëgul waaye li ci ëpp solo nee na nga yónni ay nit ci foo xam ne dañ doon tere kenn ñëw fekk si ko fa daal di ñaan ñu bàyyi leen ñu ñëw fekk ko fa ñëw jottali ko ba bi bàyyi ko ci yow nee na loolu di lu rëy ci nun loolu ba kon lan ciy jàngate mooy léppay jeex ci àdduna lu door rek dana jeex te lu waay muñ ngir yàlla ak nu mu mën a jeexee ci bët nit ñi nee ndam rek lay doon man na jeexe noo xam ne nit ñi dañuy jàpp ne échec la ne fekk yàlla succès la ne mën na doon safaan bi itam ndax borom bés bii keroog ba muy jógee fii di dem ne jàpp na ni ñu ko waroon ñëpp am nañu njàqar waaye moom day amoon na yaqin ni sacrifice boobu muy def naataange rek ci tegu nee na ndax tey Touba du naa kay en tant que engrais. kon. nee suñu bopp foofu sax de. waaye nag jàpp nañu ni. ku jóg di dox. te jàpp ni li ngay dox. lu baax la. luy defar la. ak loo ci mën a daj ci yoon bi. te muñee ko yàlla. duwataal rek. nee ndam rek li ñu la ca am solo nag. mooy di ñaan yàlla suñu borom. nee te di leen ñaan bu baax Mbàkke ngeen ñaanal leen ko. nee xam na ni yéen a ngi koy ñaanal bis bu ne. nee ñu ngi koy jot li ñu koy dégg. waaye di gën a sàpp ñaan rek bu baax. lii fi jaar yëpp. naataange topp ci. naataange pour Sénégal yëpp. pour réew mi yëpp. ba ñëpp gis ko. te yàlla may ñu ñu fekk ko yàgg yu bari. mais di daaneel kàddoom nag. ci feddali yéene ji mu am ci dëkk bu sell bi di Touba. nee président bi mu ñëwee ba ci dem rek waxaat na ko. mënuñoo ñàkk a yéene ju bu dul dara yi. bu yàlla sàkkee ab dëkk. boo xam ne. sudul bu jiitu itam. sudul bu ci tegu. ku yàlla dénk réew mi. nga ni damay defar réew mi. ne boo sàgganee dëkk boobu la réussir li nga nag. rax ci dolli nag. ñun dafa am contrat bu ñu am. contrat bu ñu am ak Touba. ndax taxawaayu waa Touba. ci at yi weesu. ci at yi weesu. nekk suñu wet. yëg ñu. jàppale ñu xeexal ñu ba àddina yëpp gis ko gis ko. nee na loolu kóllëre la goo xam ni. nee lu koy fecc day di guddi ci ñun mukk nag yàlla. moo tax ci suñuy programme yéene gi ñu am. ci defar. ci li nga xam ne mooy aajowaat. ci li nga dëkk bii. mooy aajow borom dëkk bi. mooy aajow borom dëkk dëkk bi. mais fii de kenn mënu fee def dara te gisoo ak borom dëkk bi. ba xam lan mooy ay priorité noonu lañ ko moo dugal ko ci programme bi. te bu soobee yàlla. ci weer yi di ñëw. ci at yi di ñëw. kenn ku ci ne dina ci teg bëtam incha allah. ci lu jëm ci liggéey kon. mën nañoo bañ a guddal wax ji. di ñaan yàlla sunu borom màggalu ren jii. ñu dund ko. ci jàmm. ak dal. di mas wit. ñi nga xam ne fii ci biir Touba. ñi nga xam fii ci biir Touba. nañ tuuti loraange. ci loo xam ni. loo xam ne euh, euh, mi ngi jóge ci ndox ngi jóge ci ndox mi. am nañu yéene am nañu yéene nag. ci programme yi ñuy développé. ci fii léeg ay jamono. fii léeg toog naan. naan ndox ma nongu nay kër ci Tuubaa. waaye nag noo ngi leen di masawu bu baax. am na instruction yi ñuy jox gouvernement. indi nañ fi lu xaw takku ci ay matuwaay. lu xaw a takku ci ay matuwaay. am na lu war a ñëw tey jii sax. mi ngi ci doon wax léegi ak honorable Serigne Cheikh ak monsieur le waaye luñ ci man rek mbàkk. pour woyofal mbir yi. te continuer ci liggéey boo xam ni mooy saafale mbir mi définitivement nee na bu sooba yàlla danañu ko def mag kon di ñaan yàlla it màggal gii lépp loo xam ni ñoo ngi ko fi def ci yiw jàng alxuraan jàng xasida yi zikri lépp yàlla na ko yàlla boole nangu ko. nangu ko. mu doon xéewal ci réew mi. mu doon xéewal ci réew mi. mu buntu ubbeeku. mu ci li ñu bëgg ñun ñëpp. mooy. mooy. développement réew mi. ko. defar ko. ba ba ñu ñuy ñee feneen. moo xam ci arab la. moo xam ci arab la. wala ci sinwaa la. wala euh, nasaraan. wala ñu am lu mel noonu wala lu ko raw. mais ko loolu day lu mën a nekk la. mag ñi ñaan nañ ko. ci réew mi ñaan nangu na. te seen ñaan nangu na. nee la ca des nag nun la. ci takk suñu ndigg ci liggéey. ci organisé ci discipliné kon noo ngi dellu Mbacke. nee di la sant bu baax Mbacke. nee di ñaan yàlla suñu borom yokk wér gu yaram. yàlla suñu borom bàyyil na suñu kanam ay ati ati at. mu óof nu. di ñu teete di ñu digal di ñu ñaanal di ñu orienté kon noo ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu jërëjëf Thank you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ne ñoo ngi nuyoo bu baax waaye ñoo ngi delloo nuyoo bu baax ñu delloo siyaar bi di am mbégte lool ci président Ousmane Sonko Seydina Ousmane Sonko mu ne ñoo ngi am mbégte bu baax a baax ci teewaay bii ak kaddu yi ak kaddu yi jot yi kaddu yi rafet yi kaddu yi matale yi mooy dégg nañ lépp mu suñu xol sedd na ci suñu xel gën naa dal suñu yaakaar it gën naa dolli ne kàddu yi nga xam ne moom la Seydina Ousmane wax mu ne gëm nañ ko bu baax a baax mu ne loolu rekk mooy di ci am solo yitte ji ak yéene ji ak passeer gi mu ne loolu rek mooy li ci te xam nañ ne lii mu fi wax dëgg la ci moom kon loolu rek mooy li ci am solo mu ne ñoo ngi am mbégte bu baax di am yaakaar bu baax di sant di gërëm di ñaan bu baax itam suñu borom mi ngi ak a dindi mu gàttandu leen ak tawfeex ba lépp li seen yéene ji rafet ji li seen yitte lépp suñu borom kàttanu la leen ak tawféex yombal na leen lépp ba seen yéene ji àgg nu mu gën a rafete nu mu gën a mate mu ne loolu mooy li ci am solo mu ne gannaaw yéene ji lépp lu baax la yëngatu bi lépp lu baax la kon loolu rek mooy li ci am solo kon am nañu am xel mu dal bu baax ñu ngi sant ak a gërëm mu ne ñoom bi fu ñu nekkoon naka jekk rek fas yéene nekkal sëriñ bi mu ne sëriñ bi boolewuloon dara boromam ak yonent bi mu ne loolee nag lu ñu ñàkk-ñàkk solo lu ñu doy di doy foofee rek la ñu fas yéene teg suñu tànk suñ kéem kàttan nekkal sëriñ bi sëriñ bi nag ñëpp a bokk كون دا نفي نيك رك فو نييو فك نيو في في لول رك لا نفسي ني صاح من الحمد لله رب ak seen taxawaay bi ñu am mun a jëlale na loolu mu ne waaye suñu te jëpp mooy taxaw nekkal fi sëriñ bi rek te sëriñ bi ñëpp a ko bokk incha allahu mu ne taxawaay bi yëg nañ ko te xam nañ ko bu baax ñu ne ñoom yi gën a fas la feddali suñu laxasaay ànd koog yéen yi zaahir ak baatin mu ne loolu mooy li fi nekk danañ ko ànd ak yéen bu baax a baax mu ne xam nañ seen taxawaay li ci kanam lépp mu ne lépp loolu baax lu bëgg luñ bëgg réew mi luy defar réew mi mu ne loolu danañ ci ànd ak yéen ci biir activité incha allah mu ne kon bayoboo na seen xel daal bu baax mu ne ni suñu xel dalee suñu xel daal na bu baax mu ne gannaaw yéene ji yéene ji rafet la yitte ji mat na taxawaay bi dëgër na mu ne ko loolu kuye boo rafet njot kuye boo na sa xel daal baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yàlla na yàgg bismillah ñu tàllal suñu seex amul bu noppee ñu may ko mu jàll sant Thank you.

Valeu, m e Deus. i m Thank you. ndax moom mu doxaa yàlla fi yàgg tànn muy la nga waxoon def nga ko ne bàllaay si bu réew mi yëngoo da nga leen bàyyi lépp li ngeen jàpp te ñëw ci man ma digal leen te tere leen ñu nangul la ko nga yàlla ma yàlla may ma am jommi fay bor jomaay fay ma bor waaye Ousmane ndox ba ngeen xamee li leen Serigne Touba defal